yal na nu yàlla yendale noonu ci jàmmam ba tey ñu toll ci dars fajar yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci nu ñuy waajale ab néew tey noo ngi jël nu ñuy sange néew bi ginnaaw ba ñu waxee waa ji ki génn àdduna bu fekkee am na lu génn ci moom nuñ koy setalee ki koy sang bu ko satalee ba pare bala barab boobu nga xam ne am na lu fa génn bu ko satalee ak ndox ba pare foofu nag la yéene moom waajooju di sang néew bi foofu la yéene daa raxas loxo yi ñetti yoon daa raxas jumbax bi ba ci óom yi ci kanam ak ci wàllu ndeyjoor bi ak ci ginnaaw ak ci wàllu càmmoñ bi ci kanam ak ci ndeyjoor mu raxas ko ba mu set mu tàmbali nag jàppal néew bi benn par benn comme ni ñuy jàppee raxas loxo bi daa setal gémmiñ gi foofu danañ bëgg mu jël morso wala mu jël ci witteen bi nga xam ne moom lañu war a def parfum bi mu jël ci witteen bi daldi koy raxase gémmiñ gi jël ci witteen bi raxase ko bakkan bi su paree mu sëlëm ko ginnaaw ba mu setalee bëñ yi ba mu set ak baaraamam mu tooyal ko daal setal gémmiñ gi setal bakkan bi ci morceau boobu ñuy wax walla witteen boobu nga xam ne mi ngi àndak ndox tooy waaye bu mu sotti ci gémmiñ gi ndox bu mu sotti ci bakkan bi ndox mën naa tooyal coton bi raxas gémmiñ gi tooyal coton bi fomp bakkan bi waaye bu mu def ndox ci biir bakkan bi bu mu def ndox ci biir gémmiñ gi mu daal di kanam gi daa di defaraale sikkim bi daa di raxas loxo ndeyjoor loxo càmmoñ su boobaa nag mu daa di tàmbale ci bopp bi di raxas côté ndeyjoor bi wàcc jël mbagg ndeyjoor defaraale sikkim bi bu fekkee dafa am sikkim bu fat raxas wàcc jël ndeyjoor bi jël dënnu ndeyjoor bi wàcc romb pooj bi daa ñëw ba ci dojor yi arrêté daa jëliwaat ci kaw bopp bi côté càmmoñ bi nopp bi di wàcc di wàcc topp ke noonu mbagg bi mbagg càmmoñ bi daa di wàcc jëlaale pooj bi oom bi daa ñëw ba ci dojor yi daldi di yeggale tànk ndeyjoor bi yeggale tànk càmmoñ bi su boobaa mën na koo wëlbati ndeyjoor bi daldi raxas ci ginnaaw gi moom tamit di tàmbalee ci dox gi ba ca dojor ba mu daal di delloowaat côté càmmoñ bi moom it daldi koy defee noonu raxas ko sang ko ba ci dojor ba daldi koy yeggale mbokk jullit yi lii yëpp nag na fekk sarvet moo ngi ci diggante jumbax ak óom yi ba awray néew bi dara du ci génn bu dee góor la bu dee jigéen su fekkente ne ay weeyam kenn daggu ko woon naanu yi ak poqotaan yi dafa bari kawar torop su boobaa sopp nañ bëgg nañ ñu daldi di dagg weeyi defaral ko naanu yi ah bu dee jigéen la moom wax nañ démb bu dee dafa mees wala dafa greffage walla dafa teg dara ci bopp bi dañ koy dindi su fekkee dafa léttu kawaram kese nag kenn du ko firi bu fekkee léttuwul woon nag dinañ ko mëgg ñetti mëgg daal di koy wàcce ci suuf ñetti mëgg benn ci digg bi benn ci ndeyjoor bi benn ci càmmoñ bi ñu daal di koy wàccee ca doq ba bu dee ab jigéen boo xam ne léttuwul woon su fekkente ne dafa léttu kawaram kese léttu yooyu mën nañ kaa bañ a firi loolu euh, sariya nang na ko euh, mbokk jullit lim bi ñuy sang aji faatu ji néew bi euh, benn bu fekkente ne néew bi yaramam set na yaramam laab na néew boobu mën nañ koo sang benn yoon direct waaye bu fekkente ne nag toog nay weer wala nangami nangam mooy ñetti paan yooyu ma doon wax sang bu njëkk bi ñu def ko ñetti yoon sang bu njëkk bi am eau saabu ñaareelu sang bi nekk sang bi ñetteel bi mooy ndox moomu nga xam ne dañ ciy def kaafuur ah daal di koy sotti ci yaram bi mooy troisième paan boobu ma doon wax nga xam ne tey ji yenn saa yi doomu aadamay remplacer ko parfum troisième paan boobu def ko parfum ba mu saf daal koy sotti bu ñu paree sang néew bi ñu daal di tàmbalee ci bopp néew bi ba ci tànk yi ah ci kaw ba ci suuf ci kanamak ci ginnaaw yëpp daal di koy sotti ndox mu mujj moomu mbokk jullit yi kaafuur boobu dana dimbali yaram bi ah du gaaw a soppeeku ba pare dana dimbali encore nit ñi ci xet gi nga xam ne bu fekkente ne néew bi dafa am xet buy génn ci moom mbokk jullit yi ginnaaw bañ ko sangee ba pare nag lañuy defaat mooy fomp yaraw bi moo taxoon ñu wax ca njëlbeen soxla na ñaari serviette serviette bu njëkk bi moom la ñuy muure awra bi suñ demee ba nga xam ne pare nañ ñu jël ñaareelu serviette bi daa di remplacer serviette bu njëkk ba daa di rocc ndànk serviette bi nekkoon ci suuf léegi serviette bi wow moom moo nekk foofu palaasam bële ñu daal koy wañ nag ba mu fendi ñu daal koy fompe yaramu néew bi ñu fomp ko ci kaw ba ci suuf ba yaram bi yëpp daal di fendi su boobaa nag ñu daal koy yëkkati jàppoo ko teg ko ci beneen table daal fomp fiñ ko doon sangee ba mu set daal jël perkaal bi ñu def ko ñetti sër bu ànd ay buum am na nag ñoo xam ne dañuy def ay kaalaak ay mbaxnaak waaye yonent alayhi salaatu wasalaam moom ñetti sër lañ ko defoon te loolu lu yomb la xam naa ne du ñàkk incha allah ñuy def leen ko vidéo naka la ñuy sangee néew pour ngeen gis malikaan boobu wala perkaal boobu naka lañ koy daggee ba mu nekk ñetti sër yu ànd ak seeni buum nga xam ne dañ ciy teg néew bi buñ ko ci tegee ba pare nag euh, daa jël witteen bi asaru sujjóot yëpp ñu daal ci def parfum jël witteen bi ubbi butel parfum yi commencé ko def ci witteen bi daa di def ci loxo yi ci ténk yi daa def euh, bakkan bi ak jëbi xanaa jëbeeg bakkan bi day sujjóot daa di def ñaari óomi daa di def cati baaraami tànk yi fépp fi nga xam ne ki daan néew bi fi mu daan julli loolu mu daan sujjóot di ci teg Euh, yaramam ci suuf jëbi bakkan bi ñaari ténk yi ñaari óob yi cati baaraam yi su boobaa nag yooyu yëpp ñu daal ci def parfum su pare ñu daal di ci witeen bi daal def ci loxo yi parfum daggaat ci witeen bi def ci parfum def ci poqataan yi daal daggaat witeen daal koy muure kanam gi bët yi bakkan bi ak gémmiñ gi parfum bu yaatu boobu ñu muur ko mu daal di wàcc ci nopp yi ñu daal di koy muuraale su ko defee ñu daal di defaale ci tànk yi léeg nga dégg ci yenn sangkati néew yi ñu ne dañuy écarter néew bi ci suufam fa muy demee àll ba ñu daal di koy fatt déet loolu ëpp na loolu kenn du ko def ab néew ab néew kenn du yërnu awraam xanaa nag bu fekkente ne am na lu fay génn su boobaa mën nañ kaa fat waaye néew bi nga xam ne dara dalu ko dara génnul ci moom kenn amul droit di écarter ay kantam naan suufam dañ fay def dara loolu moom wax dëgg yàlla du diine te amul téere bu ko jàngale tamit nag waaye bu fekkente ne am na luy génn ci moom foofu su fekkente ne ca suuf ga la mën nañ faa def witeen su fekkente ne ci bopp bi la mën nañ cee def coton bu bëri daal ci takk perméable euh, pour deret bu fekkee deret la deret ji bañ a génn euh, ci ci ci malikaan bi wala ci perkaal bi mbokk jullit yi euh, am nay xeet ñoo xam ne ci ay doomu aadama léeg-léeg nga gis nit dee ci accident bu métti yaramam bi di nàcc fu nekk kooku dinañ ko jëlal à part dars wala bopp bi toj toj bu doy waar su boobaa ñoo ñëpp dinañ leen jëlal dars pour wax ñi leen di sang naka lañ leen di sangee wala tànk bi wala fenn ci yaram bi am blessure boo xamante ne kooku sang bi day xaw a doy waar su boobaa ñooñu ñëpp mën nañ leen jëlal dars daal leen koy boole wax naka lañ leen di sangee almuhim kii moom def nañ ko nii ba pare ah, ba def yaram bi parfum yi li ñuy def léegi mooy wàcc sër yi nag ci moom daa di koy tàmbalee takk kon incha allah fii la ñuy yem ba suba ak jàmm ñaan sunu borom jolla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu nangul nu ko jéggal ñu njumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.